ma wan la sànq am na keneen koo mm-hmm. tuddoon muy maître Ousmane Ngom waaw coow am mm-hmm. positionnement mm-hmm. kan mooy nekk numéro deux mu mer dem langue li nga xamante ne moom mooy partem bu bees muy PLS nga ànd ak moom lu tax gis nga Ousmane mi euh, sama mag la de quelques années mais daf ma marqué ci naka daf ma marqué puisque dafa amoon euh, dafa amoon yéene ci man dafa gis nga saa wuñ doon def euh, élection législative nii man du ma fekk fa ñuy investir mais dañu euh, dañ investir ci liste nationale bi ci vingt premiers yi am na une fois j'étais dix-huitième euh, gars yi ñëw nañ ba jege ma mais jotuma jàll yéene la amoon ci man benn ñaareel ba aussi dañ ko doon xeex gis nga jamono yooyu. jamono yooyu pour lu tax nga ne dañ ko doon xeex. non gis nga jamono yooyu. ñoom Idrissa Seck ñoom Aminata Tall dañu xawoon développer benn jalousie par rapport au fait que Ousmane Ngom était le numéro deux ñu commencé di travailler góor gi te ñoom aussi dañu am ñu commencé di ko travailler di ko travailler mais finalement Ousmane était à l'étroit moi j'étais tout le temps chez lui à Dakar on discutait daaw ma nëbb dara et autres donc je savais qu'il une cabale contre lui mu dem nag ba xat ci parti mu dem ba góor gi am ak moom benn attitude boo xam ne vraiment dafa demoon ba ne jaratu ko ci loolu la waxtaan ak man ñoom Baye Lawane ñoom Cheikh Touré ñu bëri ah, ñoom Cheikh Kassé ñoom voilà. ngeen dem taxawal seen parti. ngeen dem taxawal donc loolu moo indi parti libéral sénégalais puisque nous étions des libéraux et on lui avait dit que nous tous nous allons continuer dans le libéralisme. loolu moo ko indi woon. alors bi ngay ànd ak Ousmane Ngom est-ce que vous avez un peu échangé avec maître Abdoulaye Wade ou bien pour yow am na loo xamante ne metti na la ci sa ci sa mag ci biir parti bi buy buy buy dem il nga ànd ak moom. dama sot da nga sot. dama sot puisque euh, gis nga bi ñu joxee liste ñi nga xam ne puisque dañu def lettre de démission ñun ñëpp signé ko jox chauffeur bi mu yóbbul ko. Ablaye Wade point e. mais nee na bi ma ci gisee daf ko metti mu wax ko devant tout ce qui était là-bas si tort non c'est pas possible mais bon Dieu pourquoi il est parti puisque amoon na ci man cofeel goo xam ne wallahi euh, c'était évident pour tout le monde au niveau du parti bi ma amee retour boobu aussi ça m'a fait mal mais doo ànd ak ay gor ngeen fas ba pare ngay